damay profité également ci occasion bi pour wax leen ni vale bi dafa am ay yaakaar bu bëree bu nga xam ne état bi am na ko yaakaar bi mooy vale bi contribuer donc à l'autosuffisance alimentaire à la souveraineté alimentaire. donc dama leen di ñaan muy acteurs yi muy partenaires technique et financier yi ñëpp topp suñu gannaaw ak agent SAED yi pour que liggéey boobu ñu sumu ko def ko ba yaakaar bi nga xam ni état bi am na ko suñu ñu mën a ko am yaakaar bi nag mooy autosuffisance alimentaire mooy souveraineté alimentaire. Sénégal di bay di dunde bay jaay ma xam ne lii ñu ko jox yelloo na ko mën na ko te bu ci yàlla àndee dana ci indi gis-gisam bu bees ba nit ñi gis effectivement ay résultats yu gën yi nga xamee ne amoon na ko fi li ma koy ñaanal rek mooy yàlla yàlla wëral cër yi guddal fan yi lii nga xamee ne autorité yaakaar nañ ko ci moom yàlla defal ko ko mën nag magam laa maa ngi fii ci biir bale bi nu ma ko bëggee ak nu ma ko soxlaa rek boobaa ñun mën nañ ci ànd ci yàlla àndee